bi yàlla def na fan yu néew jamono yu Diène Farba Sarr moom moo nekkoon ministre de l'habitat Diène Farba Sarr génn benn arrêté pour 37 hectares yi parce que président dafa joxe accord moom mu njëkkantu dem génne benn arrêté bi ma gis dégg arrêté bi ma def marché avant ma def pour arrêté arrêté ministériel pour utilité publique pour 37 hectares yi. waaw avant déclassement. waaw parce que am na lu mu ci laloon moom moo tax ñun bi ñu ko déggee ñu def suñuy yëngu def suñuy yëngu def suñuy yëngu. ba dossier bi nga xamante ne moom la ñu dugaloon pour que ñi nga xamante ni ñoom ñoo tab damoon ay lotissement irrégulier foofu noonu yàlla daf ñu jàpp leen yóbbu leen euh, euh, section recherche enquête leen ndekete maire bi moo ko jiite ak promoteur yi mais comme Sénégal lépp dañ koy politique ci boobu la maire bi négocier négocier ak état bi comme moom mi ngi nekkoon PDS négocier dugg biir APR. maireu Malika. ok mi ngi woon mi ngi woon. PDS. ci diggante mu transhumé. ci diggante bi dossier bi taxawee mu transhumé ñoom ñu nëgësal doxi bi fu nekk dugg nañ fa ñun waxatuñu si dara ñu teg si léegi 30 hectares yi président génne décret pour pour pour euh, pour lewal li nga xamante ni moom la jiit Farba Sarr def ñun foofu yemuñu fa sax tout simplement jox na waa BRT nee jox na les impactés mais mu am beneen mbir bu rëy bu ci am waa berte yi doo xoolee ñu si bëri jotuñu seen i kër impacté yi ñu si jotuñu seen kër si 1234 parcelles. moom ay doublon ba ñeen ñi sax ñu leen di jàpp leen yóbbu police te am na impact yi nga xam ne ba léegi nii jotuñu seen terrain bi loolu amee ñun ñu alerté yuuxu bu baax a baax maire bi mu profité ba mu ne maa ngi ci conseil municipal bi mu profité génn fa ay délibération yu mu def ci bande bi dama taxaw wax ko ne ko fii ngay génn délibération waroo fee génn délibération parce que bande la forêt classée la amoo amoo droit pour nga def ci li nga xamante ni moom mooy loolu moo tax bi mu bi mu ko délibéré bi mu demee sous préfet bi sous bi amul lenn lu ci approuvé parce que moom moo ko war a xool avis bi bi loolu amee ñun ñu ne duñu yem foofu nañu saytu nag li nga xamante ni moom moo des ci bande bi à notre grande surprise ñu bind li nga xamante ni mooy état du Sénégal bi de toutes les parties concernées à notre grande surprise ñu indil ñu Demba Ka EDK Wal maire Malika ne daf koy délibéré neuf hectares fi mu koy délibéré côté bi mu koy délibéré foofu domaine national la foofu mairie bi am na prérogative man fa délibéré nit wala société kooku dem topp dossier bi pour am suuf bi mu ñëwee ma ne ko ñun bala ñoo délibéré la kenn ñu nañu xalaat ñun Malika suba fan la war a mën a dëkk ndax dëkk baa ngi fees kër yaa ngi dëkk baa ngi màgg kër yaa ngi fees ñu délibéré Demba Ka 9 hectares j'étais le seul conseil municipal bu ne déedéet Demba Ka jël la muy jël. ñëw ci dëkk ba ne leen defal leen li ñu kenn du ko defee noonu tabaxal leen stade defaraat mairie bi defar defar defar defar defar defar defar defar <laughs> mais loolu déjà c'est une très bonne chose. c'est une très bonne chose d'une part. responsabilité sociétale d'entreprise. d'une part hmm? non non euh, leen jar amal njariñ. mais a étude impact environnemental bi nga xamante ni ñu ngi ko soxla social bi nga xam ne dañu ko soxla. environnement bi moom ba ngeen daggee filaawo yi. moom moo ko tagg. ngeen ci ngeen ci ngeen ci ngeen li may wax nii c'est passé loolu lépp ñu koy yuuxu. à notre grande surprise le 5 avril bii passé président la république génne décret pour li nga xamante ni moo des ci bande bi de fi 37 hectares yi jeexee ba à Sicap Tivaouane Peulh maanaam apix ci rond-point bi lépp Malika moom moo ko moom léegi ñu génne ko bi ñu ko génnee mu boole ko benn plan d'aménagement plan d'aménagement bi ñun pour ñu teg ko bët sax problème la. pour ñan la loolu encore. ah plan d'aménagement bi mi ngi doon plan d'aménagement global ñu tuddee ko. Euh, plan urbanisme détaillé bi nga xamante ni yëmbal nord li mu am ci bande bi daf koy génne Malika am ci bande bi daf koy génne Tivaouane Peulh li mu am ci bande bi daf koy génne loolu bu mu génnee ñoom ñu ñu koy nëbb man ma am décret bi mais gis naa plan kan lañ ko bëgg a jox loolu noonu loolu noonu état du Sénégal moom moo ko moomal boppam waaw moom moo koy attribuer ko neex waaw vous voyez te li waroon li waroon moom mooy mu informer les populations concernées avant muy def loolu bi mu ko defee ñun li ci gën a jàpp yi boo leen di informer kan jaar. par par par la mairie. mairie bi amu ci mairie bi amu ci benn connaissance bi ndaxte bërki démb lañ def réunion ak moom. pour waxtaan lii moom lu ci bëri nee na yëgul tinul parce que lu tax xam nga lu yëgul tinul parce que épée Damoclès bi nga xamante ni. état bi hmm. teg na ko ci kawam di def lu ko neex. léegi à notre grande surprise. plan boobu noonu xam nga ñen ñoo ko nar a jëf jëf ay 5 ay 25 hectares ay 15 hectares ay 5 hectares. ay bandi col blanc yi nga xamante ni ñi ngi ci ministère di finance ak nekk DGID ñoom ñoo fa nekk di ko jox Masamba ak Masamba bi problème bi amee ku mel ni Farba Ngom Sénégal yépp xam nañ ko am benn collectif bu nekk Malika ñu naan collectif Diallo ba bi nga xamante ni maire bi ba ma waxoon ne bul délibéré bi maire bi dafa am ñu mu délibéré ci biir filaawu bi ñu dagg foofu daf ko ay kër ba jaay ko ñam ko jaay ñooñu ñoo xam Farba Ngom ba Farba Ngom wutal leen audience ak si président de la république ñoom ñu yóbbaale maire Malika ci audience bi bi ñu demee maire bi ne leen demal far ba naa wax ki nga xamante ni moom mooy euh, Mahmoud Saleh problème bii ñu jéem ko lijjanti yemuñu foofu dem farba mu demee moom boppam la la xeexal am ci ay lotissement bu yaatu ki ko waroon a lekk Mahmoud Saleh am ci ça veut dire des bandits col blanc ñoom ñoo tapis dans l'ombre bëgg ko saax-saaxee li nga xamante ni mooy suufu Malika te ñun duñ te li may wax moom mooy que suñu kër j'espère que c'est pas des accusations en c'est pas des accusations en l'air te li tax si si télé laa toll di wax et je pèse mes mots mot pour mot mot bu ma wax mën naa see delluwaat lu ñu gën a metti moom mooy le pacte bi nga xamante ni le maire de la commune moom am na ko ci loolu nga xamante ni moo ngi am beneen bi nga xamante daanelal foofu daanelal foofu Malcolm daanel daanel daanelal foofu beneen bi nga xamante ni moo ngi am mhm. euh, jox nañ vingt hectares plan bi dañ ne dañ ko si jox dañ ko si jox commune Malika maire bi bi ñu ko laajee mu ne moom lañ ko jox pour mu fay ay borom maanaam boru doublon yi nga xamante ne am na ko si 37 hectares yi <laughs> loolu mu catastrophique te plan boobu ni ñu ko jël benn côté bi ñu ko lal ci ay tool tool yooñu ko lal si ay borom Malika waa ñu dëkk Malika moom ñoom ñoo ko moom moo tax le 18 bii di ñëw ñun commencé nañ suñu plan d' yàgg na mais dañ koy continuer lu doyen bi wax moom dañuy liggéey ak ñëpp li droit bi wax moom laay moom laay moom laay feddali ah. ne solution bi à la base la c'est la raison pour laquelle le 18 bii di ñëw ñu ngi bëgg a def benn forum ci foncier Malika invité ci toutes les parties concernées mu doon ministère yi mu doon. ah maire bi doon ko ci boole. xanaa non dañ ko ciy boole. nee naa la barki démb lañ toog waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy lii moom si boppam di ma nekkoon man gis naa plan bi damaa tiit moom dana ma gisul plan bi xaw ma day wax na dëgg xam dëgg.